ma wax ak moom loolu lépp enregistré naa koy teg ci digg bi ci ndax euh, fi mu toll nii moom loolu xew na moom léegi Pendo wax ak man appel boobu ba pare appel boobu ba pare appel boobu ba pare après ci laa woo sama xarit bi ma ne ko bi ne mu ne ma yow damaa mës a ñëw si yow ne la Pendo ndax kooku tamit lu may wax ak moom dama koy enregistré foofu laa toll man moo tax bu nit ñi di wax damay ree rek léegi pendoo ma vocal ko lii ma woo ko woo ba vocal ko lii. jeex tàkk nag ndax Bisaan Njaay moom mooy ñëw ci beneen mooy dem ci yow moo yor ci gëlu guyam waaye lii nag rafetlu ma ko lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw barke Seydina Muhammad ndax bi ne dafa ne ma mami sànq mënumaa wax ci wax ci mooy waxoo ma ko wax Pendo mën ko Pendo sa jëkkër a ko wax. bi dama ko woo ma ne ko bi ne mu ne ma naam.

ndax damaa Pendo daa wax am ne man maa dem wax lii te sama xarit bi ah, tamit sama xarit bi tamit noonu la ñuy demee ci moom naan ko mami Diallo moo dem ca Pendo ne ko nangam sàngam sama xarit bi de sama xarit bi ba coow li amee ba tey barki Serigne Fallou aw bu sa jox réew camiñal ma réew ma ba tey sama xarit bi wow ma ma noppi rek ba tey sama xarit bi neew ma nangam ma noppi rek Pendo yaa ma coqtaan nag ndax Bisa Ndiaye moom mooy ñëw ci beneen mooy dem ci yow. lii laa vocal pen moom ci waaye lii nag rafetlu ma ko lii dafa ñaaw. lii dafa ñaaw parce que Seydina Mohamed ndax bi nga dafa ne ma mami sànq mënu wax ci wax ci mooy waxoo ma ko wax Pendo man ko Pendo sa jëkkër ko wax sa jëkkër ko wax wax ci.

sa kër xanaa ko neex waaw. léegi Penda ma vocal ko loolu mu liir daal ne parce que daal may yónnee li ne ma mi ngi tournage. Biso je t'appelle léegi nii dama tourné clip booy sama mag ma tourné clip woo léegi léegi nii de maa ma sol nga pare dama lay woo léegi. Biso je t'appelle léegi nii dama tourné clip ngi lay woo léegi léegi nii de maa ma sol nga pare dama lay woo leer na léegi xam nga nan ngeen di def dangeen di couper ma jël yi nekk sama téléphone bii indi ma xool foofu noonu ndax nekkul foofu noonu mooy jour bi ma pendoo woowee. ba ñu waxtaan ba diisoo mu ne ma Mbisaan Ndiaye moo ko wax wax ji jëkkëram Mbisaan Ndiaye mooy seen jëkkër mu ne moo ko wax wax ji xam nga lii yëpp mënoon naa ñàkk waaye lépp bindoo moo ma tooñ ndax moo gën naan def interview daal di ñamale tuuti pour lan du ma nangu kenn du ma wasaare ci digg penc ci léppay leer léegi maa baaleetul okkin àll beneen téléphone la xaar ma xool ko foofu bu fekkee mu ngi foofu noonu ñu teg ko foofu bu fekkee nekkul foofu ma ñëw teg ko fii ma ñëw sotti ko fii incha allah ma te wax ja xam naa ne ah su ma tegee yu pendo yi xam naa bu yam fii de dina gën a ñaaw de pendo yow xam nga bu baax ko ne très bien juum nga de waroo woon a génnaat interview naan ay lii di ba pare yow fi may yuuxoo di sàllir ñun lu tax tegoo ko interview bi tuuti rek nga teg daal di coupé waat yëfi muus yooyu pour lan la yëfi muus yooyu foo ko teg ngeen sosal ma ba pare bëgg a dem tëdd nelaw noonu loolu baaxul nekkul ci biir ci biir la ne waaye laa xëy la la ba ci kanam maa ngi ñëwaat ci kanam tuuti dégguma de yaay papa xarit am àndandoo kenn mënul wax ba dara lépp du leer léppay leer naññ naññ naññ naññ pendoo yaa ma woo ne ma dangaa dégg nangam ma ne la pendoo loolu amul ku pen ma woo sama xarit ma woo sama xarit sama xarit sa tal na ma gis ngeen leer na naññ ni ngi sama xarit bi macha allah bu wàllu la ma ñëwee di ko wax. gis léegi xam nga nan lay demee nii. léegi da il faut nga wax ma kan moo ko wax léegi xam nga lan laa bëgg a xam man ki wax wax ci instant bi loolu rek moom ma intéressé kii wax wax ci rek moo ma intéressé léegi loolu beneen géem man mi toog mi maa ngi xaar ki wax wax ci ñu wax ma ko ma lijjanti ko. bi nag sa jëkkër a ko wax nee sa jëkkër moo ñëw ci ma wax ko waaye bi ne léegi loolu lépp enregistré naa ko léegi après tamit maag Pendo ba ñuy wax ba ma naan ko ba mu ne ma Mbisaan Njaay ma ko wax ak yooyu yëpp ba ma naan ko binet tamit nee nañ ko nanga ndax nga ni ne dew ma dikku ba rek laa xam teral sama bopp macha allah heure léegi lay doon do heure dañuy sotti rek li sotti li ma rek léegi su ma sottee ma tegaat lépp mu gën a leer ngeen daal di gën a gis soo leen war soo leen gisee lii nag xam ne man bonu ma de man xaw ma lii de mais comme que daa ñaaw na ñaaw ndax tey ba ñëpp ba suñu waa kër di dem dikk ci li mu sosoon Moussa Diop barke Serigne Fallou Mbacke fan ngeen ma gis fan ngeen ma gis du sama place lan laa wax lan laa wax bàyyi naa lépp mu sedd baal naa pendoo ndax sama mag la li mu wax sama maam baal naa ko ndax sama mag la du lan laa wax tey ci suba si léegi mu génnewaat liñ doon wax noonu ay lu tax tegul lépp ndax damaa ràlli ràlleeg moom wax ak moom ay bal ma ne ko pendoo gendarmerie laa jëm boo waxul ki wax wax ji ma ne ko boo waxul ki wax wax ji gendarmerie laa jëm barki Serigne lépp naa ko teg mu leer pendoo woo ma téléphone ne ma masallam ne ma sama jëkkër a ma ko wax Mbisa Njaay ma ko wax bi ne duma yàqal sama victoire lépp da ngeen koy dégg normal pendoo man ancien kënsel laa yaaya tax ma bàyyi léegi sama xol dafa yàqu dama la ko waxoon yaa ngi tontu doo ci am ndam muy saayir muy baati nag maa ngi lay wax maa ngi ñëwaat.